kaana matul xasdu li waj ilaayi kaana gi foore far di ñaani laayi lilaam di jooyi ket ba genn gàddaayi gi soowu jënd fépp mel ne lambaayi Seex Bamba daal ñaan ci barkeb jiili na yàlla maay sabi kullu jiila mooy xaadimu rasool bi soodaani mooy ramu xarni bi ani niiraani mbur yàlla dali seen jox yoneen bi mu siñe gaañi dal di jiital bamba lisaanu aal dal di waxanteeg bamba ci saar yu soo mu ba noo ngi nuyu ñëpp di siyaare bu baax a baax a baax di ñaan ci yàlla borom bis bi suñ borom mi yoon di man mu dimbali ci nin ko bëgg te dimbali ci nan ko bëggee di def ko muy li gën ci nun euh, li nga laaj ci sëñ baaba sëñ baaba lu niiw laa dund moom waaye nag su may mag ak su may bàyyi yi ma fi nee xamal nañ ma ci moom loolu lu ma wóolu lu ma gëm la moom it li may gàtt gàtt moom ak dund wax na ay at ma dégg ndax suñu borom dogal na juróom-ñaari at maa moom nooy bokk néeg bu nu fanaan bu tukkiwut te bu tukkee itam ku ñëw ci néegam dafa fanaan si mën nga fay àndal dafa fanaan bi mu fi bàyyi ko Cheikh Sidil ko itam juróom-ñaari at muy 63 ba képp bu fi sëñ Sidi nekkut fanaan ci néeg sëñ baaba man ngay àndal fanaan fa kon mel na ni fanaan naa ci kër sëñ baaba néega boppam fukki at loolu nag lu ma suñ borom jagleel la ah suñ baaba nag wax ci moom mm, lu lu lu yéeme la ndax eh, gudd na waaye mën nañ koo gàttal ndax suñ baaba bi sëñ tubaay dem ci géej gi juróom-ñaari at la am dugg juróom-ñettam njeem mat na ko ndax wax nañ ne juróom-ñaari fukki at ak juróom la dund. te boo calculé bi mu wàcceeb liggéey ak juróom-ñaari fukki at ak juróom yooyu day dëppoo ak 1888 muy at mi sëñ Moudou Moustapha gane àdduna ak sëñ Fallou moom na sëñ Moudou Moustapha ko mag waaye wóoruma moog sëñ Fallou ku ci mag ku ci jëkk ñëw jamono. sëñ Baba nekk 88 ba 95 sëñ dem ci géej gi mu toll yu juróom-ñaari at ca yooyu jamono juróom-ñaari lañ di am dal alxuraan juróom-ñaari at yooyu fii itam la jàng lépp lu muy jàng fii la ko xamee. lu ko fi fii la ko fekk ba mu xëyee fii dem Njaasaan ca seex Bou Kounta mu may ko du xaadir mu ñëw fii am naa xam naa ay kilifay xaadir yu mag tund yooyu sëñ baabaa leen may wér de waaye loolu taxunoo jóg mu ne fi ba jëmmi jamono ci ñaar fukki atam ak juróom ci biir ñaar fukki at ya Cheikh Babacar Thiel gaan jóge fii dem dem gànnaar fekk sëriñ Touba ànd ak ku ñuy wax sëñ Adama Sey Càmba sëñ Adama Seye nag lii moo ma ko nettali 1969 eh, ñu bari fekke woon am nañu ko fekke woon muy sëñ Mandir fekke woon na ko ak ku ñuy wax Baba Kool ak Omar Sy Tall mii fi tey baayam bay di taal ñooñu fekke nañ ba ma ko nettali ak saaxeer wa illaa ay jaaga damaa jàppul ku mu xamal ma ne ma ba sëñ Babacar Tidiane dem. gànnaar ca xomaag man la àndal ba ko sëñ Tuubaa laajee sëñ Baaba Karate gaan taxutul mu xam nam ne waaye ne maa ne xam naa fa ku ñuy wax sëriñ Baaba Kunta ne sëñ Tuubaa ne ab Babacar Saddiix daal di bàyyi ba mu ñibbisee ba ñëw njaareem douze treize ak quatorze ca biir treize ak quatorze at dañuy duggante atam ama bal sasin junni ak ñett téeméer ak fanweer ak ñaar ci gàddaak yonent bi sëñ Tuubaa sëñ sëñ Babacar Cargaan jóge fii dem siyaare ji ko njaareem mu ne ko Babacar sa ndongo la anam mu ne ko maa ngi ma ànd mun ne ko wool ma ko foofu nag mu ko wooyee nag lii may waaj a wax sëñ Adama ama ko nettili ci làmmiñu boppam nee moo ñëw mu xelli kaasab kafe jox ma nee ma naan ko téex ba ca des nee ma sutti ko ci samay loxo diw ko ci saab xar kanam nee sëñ Tuubaa moom nee kere gis naa bëñam nee mu ne ma demal mbuso wooli ma Babacar Saddiq bi mu ñëwee fii dafa fekk sëñ baaba war a siyaare ji Cheikh Bou Kounta ba wal ba defar ab yóbbalam bi mu defee yóbbal bi itam ba sëf jamono ay mbaamam ak gileem saret boo bariwut mu sëf la mu sëf ci ay sangal ak ay ay ay dugub ak i daqaar ndax boo loolooy njariñal réew mi ba mu demee ndaw li si ne ko ñëwal wuyu sëñ Tuubaa sëñ baaba dafa dajale waa dëkk bii di mbusu boo ay magama fi ne ak i rakkam xam naa boo doomee bariwuñu ndax buñ ci amee ñuy fàttaliku muy sëñ Mandiir wala ku mel ne Ceeru Ndiir ndax boo ñu ci des ndax 14 la te te ñoom loolu ñoom waa këram ñu ci ëpp 14 lañ gane àdduna mu woo leen ne dama doon dem ci seex bu waaye sëñ Tuubaa woo kenn dong nga ko ci am tontu lu mu mën a dégg muy Baye Abdou Ndiir Baye Abdou Ndiir ne ko ña ca jóg dem nekku ko nun sëñ Tuubaa xamu nu wóowunu bàyyi ab ndir magay boppam ja ne ko ku sëriñ Tuubaa woo nga wuju ko di nga wuju sëriñ Tuubaa mbaa ma dugg ci sama néeg bi taal ko ci sama kaw mbaa ma tàbbi ci teen bi suñ baaba ne ko Abdoulaye loolu jëru ko yow laa yàndal ñu ànd dem bañ demee foofu nag ñaari yoo xam ne waaye man bu ma sukkandiku muy bu suñ jiiri waa daan sugg sëñ Tuubaa wax sëñ jiiri waa daan ne ko damay am gan nag ma ko teerul te tëralal ma ko suñ baaba dem fanaan kër suñ jiiri waa daan ba ci suba sa suñ tubaa yabal ay ndaw ndaw nag nee mat na ñett nii ñu ne ko sëñ bi nee na ganam gi jàll si lii may wax nag sëñ baabaa ko wax mu dugg ci moom nopp ne ba ñu ànd ñoom ñuy ubbi di ubbi di ubbi ba ma seen sëñ tubaa laal na kee ma suñ borom wonoon nee raamu ma doxu daw ma dama tëdd ni jaan def laa def burgalu ba àgg ni sóob ko sama ñaar loxo ne mu téye ma ne ma ndax xam nga sa maam Mohamed sëñ baaba ne ko waaw ñu wàqante ñoom ñaar lañ wàqante sëñ Tuubaa jël xalimaam sëpp ko ca daara ca daaja bind jox ko ne ko samaam mëndiir faabooy Muhammad la tudd moom itam dafay ñëwoon doon koy atte jamono ndaje jamono mu dénkan ma la lii am yont bi moo ko jox mu ne naa la ko téel bu ñëwee ma jox la ko daal tey jot ba mu ca jotee daal di dëpp ñibbisi bi muy dem nag di wuyu Sëriñ Tuubaa fas wu mu fi bàyyi woon seex buug ko dénkan fas wu mu tudde ko ku bañ buur xaw ma nag lu mu wund fos woowee ñu fab ko ginnaawam ay nit jóge fii ci mbuso dem na seex bu sëñ baaba jibbaloon sa fas wi sëñ Tuubaa sëñ bu woon na seex baaba Cees waaye loolu taxunoo jóg sëñ baaba wuy si ñibbisi jàmm dox seen diggante ba tax na teeni kalañ ya fi neen seex bu ak ñi fi wuutu woon ci Njaasaan ñoo daa yebal bambara yi ñu di gasaat teenu Mama Tandir bii bii ci Mbuso ñu di ko wàqaliwaat ba ne yàlla dogal ñu am teem ciment 1955. sëñ Baba nag euh, sëñ Abdoulaat Mbacke moom Serigne wax na ma ne 1985 la ma ko wax dama ko gan dama ànd ak sëñ Sang Gay jóge Bakel ñu indi daayira nu ñëw ban gisee moom nun ñaar dong ak sëriñ bi yàlla nu ñetteel sëñ bi toog ci lalab ndësën ci suuf ay poos nu ñu nuyoo sëñ sang gay ne ko kii doomi sëñ Ibrahima Ndiir la ca xombal Cheikh Abdoulaye Mbacke daal ma yóotee ma sama ñaar loxo ne ma la bokk ak sëñ Baba Kunta ma ne ko mooy sa waajur ma ne ko sang de da ngaa amut ab gis waaye moom mi bi muy dugg malaayka yaa ngi ne doomi sëñ Baba ay dugg si ma daal di yuuxu mu téye ma nag ba mu ma rëcc mënuma ko rëcc laal ne ma mbuso googee de ñëw naa fa ànd ak ku sëriñ tubaa ànd ak sëñ muuru Mustafaa ak ku sëriñ tubaa am ci góor fukki doom yeeg benn wala ñaar yend fa fanaan fa yenduwaat fa ba julli takkusaan jóge fa dem julli ci kër Yuusufa Mbaw àgguñu ci di dem kër Yuusufa Mbaw jullee fii ci njeng julli kay baa ngi ci àll bi am na ñu naan la waaye Daaru Salaam ndax Daaru boo fa jógee doo jaat tund ngay ba oto di fa léegi sëñ baa bi muy ñëw nag fii ci Mbuso bu fekkee ne am nañu wata it dugguñu wata ndax saxaar lañ dugg ñoom ñëpp wàcc Bambey luyee fa oto ba mag ñuy wax T45 ñu luye ko naar bi duye leen gasoil ba mu fees wala isaas wut leen ñaari bidon céréales noonu la ko mag ñuy waxee ñaari céréales gasoil ne leen bu jeexee ngeen def ko ci naar ba ñii ne ahma ahma am ahmad yatim la waaye nixma tuuma laa sukkandiku ndax mbelam tuuma doomam moo doon dawal wata ba bi mu ñëwee ba weesu garage Mbuso jàdd tëli bi jëman ceeb bi mu ñëwee ba tund naar bi wàcc ne oto bi daa sonn ñii naar bi daa réew ñii naar bi daa màndi sëñ baaba daal di yónnee ci sëñ Yusufa Mbaw yónnee ca Baye Ibra Tikke Njaay yónnee ca Mam Biram Daawudu Njaay Daawudu Njaay ci Mbajaan ne leen jigéen ju sir bu laab na ko daw dikk ñu lale ay sir tund ba biir néeg sëñ bi muudum sëñ muuduma saay wàcc sëñ baaba takk aw fas wu jigéen wax a xacc ak laltaay ko ñu sëñ muuduma saa sëñ muuduma gàll ca loxoom di jor ba ne ko du ma war yor daal pot yu mboq ñu ànd sëñ baaba wammat fas wi sëñ muuduma mu teg ca loxoom sëñ Fallu topp ji sëñ Baara topp ji sëñ Basiiru topp ji sëñ Abdou Aziz topp ji Seex Abdulaay dóor ak si ñu ànd ba agsi ci kër gi ñu yend fi fanaan fi yenduwaat fi bu jullee fi tisbaar bay waaj julli takkusaan ñu jàppe fii dem kër Yuusuf Mbaw diggante fii ak njeng matul ñaari kilomètre mbaa ci la toll ñu julli ci yoonu jullikaay ba Baye Mor Ndir moo fa defan ab silaan def ak màngo loolu lu am la loo xam ne lii ñu ko fekke woon ñu ñu ngi doon dundandoo ak man di ma ko nettali ndax ku ñuy wax gu ñuy wax Baye mbaay Mbaye Baye ab Ceer Mbaye laaj naa ko lu mu ci xam nee ma man la sëñ Baba yebalan may ca Ahmed Yatim ca Bambey nee wëlis la wut dugal perkaar ca biir jël xaay ba fas ko ci kaaram yeew ko ci sama ndigg nee gudd jot ma jóge fii dem Bambey àgg fëgg ne naar bi génn mën na ko sëñ baaba ma yónni mburu ne mu lal sër ba ca biir gaal ga def ko mburu ba mu fees mu mu muuraat ko tëj gaal ga tikki xaaj ba ma yenu gaal ga ne bi may ñëw fii bay waa a tëdd lañ noonu noddu gu jëkk ngan nga ci bàyyi bi mati ak Baye Ibrahima Mbaye moom lañ ca fàttaliku bëriwul lool waaye am na lu mu ca fàttaliku ndax sëñ Tuuba Baaba dafa anab toogarub ñaam bi tudde ko Daaru Naim duppee ko Daaru Naim ak Cheikh Mamadou Moustapha Guèye ca Mbàkke doon fi bay ñaam bi bu weex ñaam bi booba mag ñi sunu ngoon dañ ko daa wax ñaam bi màkka Baaba wut te ñaam bi wut matam tam jële mbaan woo ay nit ku tari surtout yasi yasi doo bokk ca ñay lakk ñaam ja ña ko man mu tariloo leen ko ñu tari ko mu jox leen ñam bi ñu di wala mu wut suukar tël si ak diw ñor dëbb ko ba mu ñor mu bëtti ko di ko bu ruccee bu ruccee gaajanam ñaami ba sol ko ca biir xam naa loolu lañu tuddi léegi sànni di xaw si la xaw ma lan loolu njuufee nii bëgg bi mu defee noonu loolu lañ doon ganalee sëñ bi sëñ baaba rëdd aw rëdd fukki mètre yu carré wet gu ne fukki mètre muy téeméeri mètre carré mu ne waa réew mi nañ ko def ay ginaar ba foo joggi jog ginaar mbaa sëñ bi du ñëw loolu loolu ngan googa loolu lañ defal sëñ Moudou Moustapha e, foofu daal ci ci wàllu jëfi sëñ baaba e, am naa lu ma ci xam am naa loolu maa ko fekk am na yooyu jër naa wax waaye jër te wax ndax ja Mouhamadou bi koy jàpp laata ñu koy jàpp yëg naa ko lu mat fukki fan ak juróom xam ne nañ ko jàpp ndax ay nit a jógee Bambey ànd ak ñu dëkk ci tund dinaa ci tudd kenn ak Baye Matar Mbeng mu gàtt ma ak Touba mu ñëw si Touba Ndir dong nga amoon sañ-sañ bi sëñ Baba guddi wala Baye Taf te Touba ko ci pënëb sañ-sañ ba mu ñëwee yëglu ca buntu kayoor ba sëñ Baba ana kooku mu ne ko mën a Touba mu ne ko looy do mu ne ko dama ànd ko gan mu ubbi buntu Saalum bi maa ngi tëdd ci lal bi xool ñu wàcc ñaari saaku suukar peñ lañ yoon woon saaku bu ne def fan peñ ak benn wala fan ak ñaar. ñuy wàññi may gis ñuy wàññi may gis ba mu rangale bañ waxee lañ wax sëñ baaba daa jóg julli ñaar ràkka daal ni leen dem leen kenn du leen jàpp waaye ki leen tax na jóg moom mi ngi ci loolu maa ko fekkee te maay dee fekki leen loolu xam naa ko bu loolu jàllee géy docteur mi ne Lambaay maam mu ñu wax njaga kitaal doon doomi ndey maat sekk ak jëm kuuri sekk ca ca ca ñaaxar ngalañ ma ngarañ njaga njaga ki daal daa faatu altine ci suba te suñ baaba jaaran fa ci dimanche ji ne leen lu xew naa ko yëg ñu daal di yónnee ca moom bàttal fekkuñu fa ñu dem njaayan toog fekkuñu fa ñu jàll sooma fekkuñu fa ñu jàll eh, njàmbur gii Aliou seen ndigal dëkk tey xaw ma sëñ Cheikh ndigal la bañ fa jàllee ñu leen sëñ baaba dëpp na ma nga ñaaxar ñu wari fas daw dabe ko ñu ngi ko dabe maqaj kër ñoxor juuf bañ nuyoo moom ne ko njaga gitaala ñaaxaar lañ ko fekk kër jam kóor yi mu ne ñaa njaga gitaal de faatu ñu doon la koy jóg mu ne faatuwut ñu ne ko axagañ ah faatu na démb sëñ baaba daal di ngalañ nga lañ takkalu ba ñëw daal ni leen ndax néeg bu jigéen mësta ta jaxndu ca gayet gi am na fi ñu ne ko waaw néeg bi dañ koo daaj ba xada ko te teguñu ko mën nañ ko teg ñu teg néeg ba wur ca sàkket ya sëñ baaba dugg ca biir ba mu génnee mat sekk na na ma ak sëñ Sidi mii tey ne na ma sëñ Baba daa ñaq ba mbubb miir satati topp ko mooy nañ ko toggale bi laa dundaat na fi juróom ñaari at door faatu loolu moom am xam-xam bu wóor a wóor a ku ñuy wax Amet Diouf Baye Babou juuf taalib sëñ Muudu Faatu Diouf Amet taalib sëñ Baba wan fii la neen tàggu sëñ Baba ne koy damay dem damay tukki dem mbuur ci séréer su ñoomin kese ànd ak ñoom di nappi jën nee na dugg na gaal ñaari fan yooyu demut cib dëkk gaal ga toj ba mu yóoxoo na sees baaba gunda ndiir aw fos la gis wu góor wu ñuul mbongu mu jàpp ci kenn mu naaw moom génn ko ne ba mu génnee mu sëgg di faru daalam gisatul dara sëñ baaba daal di xëy woo sëñ ne ko baleel leen ma déem gi déem gi mu ngi fent ginnaaw kër baay boonu Sidi Jeng mi war naa xam déem googa bañ ko balee ba mu set mu teglu fa ab piliyaan daal di ne Sidi mu ne ko ndiir mu ne ko demal awoo wutil nii wuti garaal gàttanul ma Amet Diouf sëñ Siidi man nee ma dëpp dem jaare ne ci biir daara ji ñëw tëdd ne moom daa bëgg amir ji bu ma ku tukki ba am yaari weer yetti weer nga naan demal gàttalul ma ko ne suuti mu ne Siidi ne ma ko ndiir mu ne ma kaay mu ñu mu ne ma kee di ñëw ne ma ne ko amir Juuf kee xaw ma ko ne mu ne gàttandu ko ma gàttandu ko mooy amir Juuf ne na nga def gaal ga mu yuuxu mu ne ko koy dem tàggu ma di nga ma dellu si dara mënu laa rey sëñ baaba def na loolu mu lu wér lu ay nit seede daam njaay mii neen mbootal baayam sëñ Abdourahmane Ndiaye taalib sëñ Muudu Faatu woon li indi daam Ndiaye kër sëñ Baaba Abdourahmane Ndiaye moo ma ko wax sëñ di fekke ko ak bàyyi taf ak bukk dañ ko doon wàcceelib kaamil la mata nañ fukki nit ak nangam daal na kenn mës sa ñemee tukki ci tund wii te tàgguwoo sëñ Baaba ca dem ak Ndakaaru gu jëkk moo ko wax fekke wu ma ko man nee ma ñu tàgg ko dimanche ca ngoon mu ne bu subaa na nga xëy ne ma ne ko waaw mu ñaal ma ne ma bët set dima altine xëyuma talaata ma àllarba ba àllarba ma alxames ci suba cuuy sëñ baaba ke fos fii ci mbuso sa voiture bi dem lambaay ne muudu mbudo yónneel ma ca ca ca Abdourahmane Ndiaye Sidi Diagne la yónni wala Serigne Gassama xaw ma kum ci yónni waaye ñaar kenn ci dem ba mu demee dajeeg moom mu turam ndox ci buntu bi a saako ab saakoos saakoos la ko ma ngi daawa moom loolu mel ne saako si daal am ñaari bant baaba Abdourahmane jiitlanteeg moom ñëw ak si lambaay ne sëñ muurul mu ne ko sëñ bee la waa dama wuju ko ba mag see mu ne ko Abdourahmane sonal nga ma ba mu ñetti yoon ne ko roogu fanaan ndakaaru bi fóot naa ko juróom-ñaari yoon gisuma sa roogi sonal nga ma Abdourahmane yuuxu daa dawee foofa dem jàpp loxoom daam jaa ñu jibal ko sëñ Baba loolu loolu am naa ci xam-xam yu wóor sëriñ Basiiru nag li tax nu féetee moom li wolof yi wax bëri li la xuma mbër yëpp daje di bëri ku man xam ñu xam ko sëñ Mourou Moussa daa ànd ak doomi Sëriñ Tuubaa yëpp ku mu jur ci góor ñu ñëw fii ci Mbuso fanaan fi yendu fi fanaan fi yendu waatu fi ba takkusaan ju ñibbi ba ñibbee sëñ Basiiru xam la mu xam daal dugg saxaar wàcc njaay wàcc ndàngal ma boo demee Ngaraaf Poole jumaa jooju fa ne sëñ Basiiru ko julli ñu màggal julli ga sëñ Cheikh Khady Fall yebal na fa doomam sëñ sëñ sëñ Abdou Khadir Fall ma te jumaa ja ma nga fa sëñ Basiru daal di ñëw jaar mexe ñu takkal ak fi aw fos mu ñu fekk si sëñ baaba diisoo ak moom dakkut takkut ba sëñ mu doon sàccab liggéey sëñ baaba ne sëñ Basiru xaas la daal di jokk ci moom. am na loolu du ma ko wax ndax am na kër yooyu fii ci Touba yu ñëpp xam kër sëñ baaba wan ba ñuy lotti seen liñ maa bu jëkk ba sëñ baaba defar sàkket ko ba mat mu jox ko sëñ Basiru addiya ñu natt daaru minam mu tàggat ko mat sëñ Basiru woo ko ne ko danoo war a jàkkaarlooy kër yow mal xiyaam bu ma jox ko addiya looloo nu bàyyi daaru minam ci benc bi ba tey sëñ baaba daal seex bu euh, xam naa loolu bari ci moom itam euh, ci ci wàllu mbuso yi Moomadul Muxtaar ak Faaboy Mbooj ñoo jur Mëndir Faaboy Mëndir yaayam Faaboy Mbooj la tudd Faatumata la waaye naar dafa am na muy suppi ay tur Mëndir juddu xaw ma ñu bokkal baay ak ndey moom laa xam topp nag la maamam taxan mu jóge Madinatul Munawwara mu di ko gëstu jaar Pëleen Died am na sut fa bàyyi ko léegi ñu ngi fi wala ñu ne ci jotaay bi ñooñ Pëleen Died lañ cosaanoo am fa bàyyi njabootam waa Mbawor seen maama jóge fii delluwaat Mbawor waaye ñoom desuñu woon foofa sëñ bi jaarut Mbawor Pëleen Died la jaar sëñ Mandiir mu ñu jaar na ngooj njooj ji ñëw làmbaay teeñ bam mu fekk mu ne ko daa am lu saa maam taxan mu jóge mu Madinatul Munawwara di ko wër te mu ngi tund wi teeñ ne ko demal mëndir nag li muy wër lépp pitaxam ma rem la wut takkal ko téere bu xëyee ànd ak moom bu ngoonee pitax ma dem mu dem. ba mu ñëw fii ci mbuso ci guy pitax guy pitax ngóor sii di jooy bay na fa bayati fa ba pitax ma tongee ci guy ga mëndiir di wàcc pitax ma naaw mu daal di àndaat ak bagage am ay gileem ak mbaam ak dongoom jàll fi ñu fii di déema maam am na ñu fa jóge léegi foofee bàmmeelam mëndir ba ne ak déema fa saxaan ba ca pitax ma togee la téere ba dagg rot suuf. moo xam ne fii taxan maa am jóge mat la di ko wër mën dëkk bi am na ñu wax 600 nangam waaye 702 leen gën a bind noonu kon dëkk bi am na téeméeri at ak fanweer ak ak astaxfirlaa ñaar fukk ak benn ci ren ñetti téeméeri at ak ñaar fukk ak benn ci ren mëndir na bi ñu xool nag mëndir ki gaañu ay 750 faatu ba am baam at sëñ Tuubaa door a gane jamono sëñ Tuubaa nekk fi ba ba ba dund lu jógee ñeent fukki at ba astaxfirlaa fanweeri juróom ka juddu ca jamono mu ne mëndir sama mën a boole yow kon ñoom ñett am na ci ay dara lañu ndax téeméer ak fanweer ak ñett yoo xam ne dox na seen diggante foofu laal laa mën a yem ci li ma xam ci sëñ baaba ak mëndir na ngeen ma ba làq nag mbir mi nag du li waxee dëgg lima xam laa wax li ma wax néew ma moo am. waaye li ma xam man loolu laa wax te sukkandikoo naa ko fu ma doy ngeen baal maa ko jërë ngeen jëf. بشرولي توصف لنا النصرانا بحفلي مثل ورت قالقا جار اللومي يا أسمي جار كتنو جم داومي ببتدي آنك سيق بامبخي جم داومي روان بلغو الشكو تبابي أرمي فوال فرانشام كو وقتو شيخ بامبي تمستتيم الوقت ملكني مالكين داومي مغت كباني الحدار تسعومي